jërë ngeen jëf mbokku internetu BP Actu yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek ah di leen ziar tey nekk mercredi 2 février 2022 ñu ñoo xeen si yéen kaay yi ma si ànd ak soxna Aminata Ndiaye Amina maa ngi lay nuyu di lay zila ziar ziar la bu wér bokkandoo di ziar képp ki ñuy suivre saa su nekk sur la BP Actu te dalal leen jàmm ci xibaar yi journal l'Observateur lañ koy njëkkee rek moom mi nga xamante ne xëy na rek dalal njiitum réew mi di wax si moom mu mel tey ah, euh, le grand jeu ni ko waxee rek kon ma dafa mel ni dafa con dafa xëy convoqué ministre am yi waaye dafa mel ni ngoon ma bi moom ñi nga xamante ni ñoo bokk ci parti bi ñooñu la convoqué Boucar convocation yu mag yi tey jii lay euh, dooree moom suñu njiitum réew président Macky Sall daal dinay convoqué ay ministre am euh, ci suba gi ñoom nag bu ñu pareek ñoom ci ngoon gi mu convoqué ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci euh, partem ba tax la nag tey jii moom lay daal di génne la grand waaye tamit tey la fa séenee génne bâton bi te ñu bari nag dinañu risqué léegi la fas yéene génnee patron bi soxna Amina Ndiaye yaakaar ne loolu nag dañ nekk na lu ama ama amam solo waaye ba léegi rek mu mel ni tamit entretien journal bi seex na benn waxtaan bu yaatoo yaatu ak ki nga xamante rek moo di Imam Ndaw Imam Ndaw ko gisee ginnaaw bañ euh, nag na ay at duggoon na fi kaso génnaat duggaat ne mbirum Imam Imam Ndaw nag jamono ji fàtte nañ ko ñu déedéet daal dañ koy defalaat beneen appel mu war a dem wuy ji tribunal ci mois bii nii ñu nekk incha allah moom nag kàddu yam ca njëkk a mooy que ni euh, jamono ji moom pare na ci lépp euh, mënatul dund loo xamante ni dund ko woon ba noppi ci kaso bi mënatuñ koo teg lu gën a naqari lañ ko tegoon ci biir kaso bi donc daal lépp jël na ko wékk ko ci loxol suñu borom. lépp jël na ko wekk ko ci loxol suñu borom kii tamit jël na lépp wékk ko ci li nga xamante ni rek mooy maanaam tey si euh, si cadre bi nga xamante ni tey moom lañ nekk war a jouer demi-finale mu mel ni nag tey. bi ñëw na si ak ñi nga xamante ni tey mooy Sadio Mané la gën a fësal waaye dafa mel ni rek psychose bi nga xamante ni rek gis nañ ko si li nga xamante rek mooy maanaam zone ak les balles arrêtées affaire yu demee noonu les pièges avertis à à éviter mu mel ni daal Aliou Cissé maanaam tey ni mu war a manager gars yi wala ni mu war a coacher gars yi journal bi ñëw na si. góorgóorlu nañu ba daal yegg fi nga xamante ne moom moo di demi-finale war koo jongante tey jii nag bu fukki waxtu juróom-ñeent jotee Sénégal ak Burkina Faso la war a doxee waaye nag gis nañu kan bi moom dafa bari ay joueurs yoo xamante ne dañ leen ciy jox carton jaune Sénégal euh, gis nañu jox nañ ci carton jaune euh, ñaar ba ñetti euh, joueurs looloo waral nag journal bi nee na li nga xamante ni moom mën nañu war a éviter bokk na ci li nga xamante ni moom moo di carton jaune yooyu waaye tamit yenn ci bal yi nga xamante ni ñoo ngi koy arrêté wala yenn bal yi nga xamante ni ngi koy perdre teg ci tamit ràññee baax a baax baax li nga xamante ni moom moo di pièges yi nekk seen karam ñu éviter ko Aliou Cissé Euh, nee na nag ay joueur ñi nga xamante ñoom ñoo di njabootam pare nañu démb tey soog ñëw bés bu rafet la tey soog ñëw moo tax na tamit bés bés bi ñuy xaar mooy maanaam tey bésu législative yi moo moo fi nekkoon ministre de la jeunesse mu ngi wax nag si li nga xamante mooy maanaam opposition bi pression bi nga xamante ne rek teg nañ ko pouvoir bi comme ni ñu ko waxee rek législative yi incha allah élection yi mois de juin la war a am nag moom mooy jël pression bu rëy di ko teg ci ndoddal pouvoir bi nee nañu ensemble soit dañuy dugg ci biir wara ñu daal di mottu nekk ci biti waaye nag li nga xamante ni moom euh, ni moom moo di président Macky Sall. loolu waxi Alioune Sow la soxna Amina Ndiaye nekkoon fi ministre de la jeunesse noonu la ñuy daal di def rek daal jàll si journal bi nga xamante ni rek moo di journalu Vox Populi xëy na rek tamit di wax ci li nga xamante ni rek mooy li amoon fële ca Guinée ah, mu mel ni rek ni ñu ko mën a Guinée Bissau muy maanaam tey coup d'état boo xamante ni daal jàpp nañ ne échec la mujjee coup d'état boo xamante bi mooy deuxième dégg nañ ko en espace de quelques mois moom nag président bi nee euh, ñu nekkoon ci ginnaawam di ko préparer daal dinañuy échec ndax euh, dafa dénoncé woon benn acte acte bi mi ngi ko jëmale woon ci wàllum narcotrafic ñi nekk ci wàllum drogue ak li nga xamante ni moom moo di wàllum corruption plusieurs morts déjà enregistré nañ ko foofu noonu ca diwaanu Guinée euh, dafa daal di raté waaye kii nii di président bi daal di nay defaruwaat ba jekk ndax euh, nee na daal euh, fasul yéen a bàyyi loxoom ab benn yoon. fasul yéene bàyyi loxoom benn yoon ñi tamit fas ñu yéene bàyyi seen loxo benn yoon muy waaye askan wi mu mel ni nag bëgg nañu def benn recours. bëgg nañoo defaat benn recours waa ñi nga xamante ni eh, ñoom ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo bëgg a def recours te diwaanu Pikine xool li nga xamante ni moom moo di seen ndam bi ñu fa daal di contesté yow tamit daal di ñëw au secours de Wallu euh, Ousmane Sonko yëkkati ay kàddoom di wax ni eh, kii nii di eh, Macky Sall ak ay ñoñom dañoo daal di raté élection yi inconstat incontestablement donc amul lenn loo xamante ni daal jar na fi recours ak leneen ak leneen te nañu moytu nag bu baax a baax ah, di ñaaxaat euh, ndaw ñi ba ñu delluwaat ci li xewoon ci mois de mars. ci mois de mars moo tax tey journal Vox Populi dalal na tamit Mimi Touré bi nga xamante ni rek moom moo fi nekkoon ancien premier ministre waaye tamit nekk li nga xamante ni tey mooy présidente euh, CESE mun na mel ni nag tey. wax na daal ci li nga xamante ne mooy maanaam tey système bi ni système bi njiitu réew mi wala gouverneur réew mi bariwul lu muy def sorti moom mi Mimi ture waaye nag yëkkati na ay kàddoom cette fois ci daal di waxaat ci li nga xamante ni moom moo di présidence su Thiès ndax moom moo jël chaisem daal di koy jébal ki nga xamante ni moom moo di Idrissa Seck Mimi Touré Mimi Touré euh, le système idéal du gouvernance ñëwaat na ci daal di ne suggérer tamit ay priorité Euh, yoo xamante ni euh, dina jëmale kanam askan bi rawatina africain yi ki nga xamante ni moo di suñu njiitum réew moo di suñu njiitum réew waaye ba léegi rek si journal Vox Populi wax xëy tamit dalal ci ki nga xamante ni rek moo di Aliou Cissé muy wax ci derby bi war a daw si diggante Burkina ak Sénégal match bi nekk tey la war a am si 19h incha allah. en tout cas tey la tey lu waaye doon jaay tey lay lëmb rek maamu ja jaare fa jar ba faaw kii nii di Aliou Cissé na nee na pare nañu démb tey soog a ñag te bu ñu xoolee euh, historique gu gaynde yi ak waa Burkina Faso Faso euh, suñu gaynde yi ñoom ñoo ëpp avantage foofu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di borom étalon la nar a boo xamante ni nag nee na ñoom takku nañ ba dëgër. takku nañ ba dëgër ñii tamit dañoo takku ba dëgër ñoom ñi nga xamante ni rek dañuy demande annulation wu li nga xamante ni rek moom mooy résultat yi nga xamante ni rek dafa am foofu noonu sa diwaanu Kaolack mu mel ni moom bitee moom mu ngi accusé ñi nga xamante ni rek moo di ay niti sëriñ bu waaye tamit accusé waal tamit xaj yi nga xamante ni tey nee na andi woon nañ ko foofu noonu ci bureau de vote yi. la ca njëkk mooy nañu daal di annulé li nga xamante ni moom moo di ñetti bureau de vote yi nekkoon ca diwaanu Kaolack bi tey euh, moo accusé Serigne ak ay euh, chien maanaam daal xaj yi nga xamante ni moom la ñu lase foofu nee na daal xaj yooyee moo taxoon ñu ci bari ci ay militant daal di ba daw mujj ñoo àggale li nga xamante ni moom moo di vote El Hadji Malick Diouf avocat ànd ndawle moom nag nee na c'est ridicule euh, ci instant bi ni ñu nekk di waxtaanee li nga xamante ni moom moo di wàllum xaj recours la boo xamante ni nekk loo xamante ni mën na prospérer Benno Bokk Yaakaar tamit daal dinay euh, ciblé li nga xamante ni moom moo di bureau de vote ya nekkoon te diwaanu Njafaan ak Gandiaye ànd ndawle saisi à son tour la cour d'appel dafa mel ni daal ñoo ngi baraada feeraat ci résultat yi ñu ngi baraada feeraat ci résultat yi kii tamit ñi kii wala kii tamit mu ngi baraada feer ak yoon moom mi nga xamante ni jàpp nañ ne dafa ubbi ah benn benn restaurant boo xamante ni tey amul woon li nga xamante ni moo di autorisation ñu naan ko restaurant indo. restaurant ay ay restaurant indo lañu sax dañ doon def benn enchaînement nocturne li taal ay pétard ci centre ville bi di célébrer li nga xamante moom moo di nouvelle an chinois yi euh, saltan nag pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo moom boobee bërëb ndax non seulement amuñu benn autorisation amul benn papier bul firndeel ni ñoom ñi tey ñoo ci règlement bu ñu amee ay clients wala leneen ak leneen lu ni mel établissement boobee daal waaye tamit nag daal dina ñuy déférer ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom pour trouble à l'ordre public teg ci tamit li nga xamante ne moom moo di exploitation de l'établissement sans autorisation sans autorisation waaye tamit lii tam beneen euh, métier la rek bu am foofu noonu nga xamante ne moo di sa diwaanu Nioro mu mel ne nag tey am na ab feu de bourse feu bu fa am ah, ba mu mujjee sax am ku mu faat bakkanam am na ku mu fa daal di faat bakkanam comme ni nga ko waxee feu de brousse ba ma nga xewee fële ca diwaanu Nioro euh, fële boo xamante ni nag ba suñu yoonu yàlla tey jii xamuñu lan moo tax euh, mu daal di tàkk xamuñu ba xam circuit courant la xamuñu ba xam almet bu fa tàkk la nit daal ñàkkee na fa bakkanam foofu la sa diwaanu dabal yi noonu la ñu daal di def daal di jàll si journal bi nga xamante ni rek moo di journal bu record journal record nag soxna Amina Ndiaye xëy na rek

ngir bëgg a gañe Sénégal waaye tamit ngir bëgg a gañe CAN bi. ngir bëgg a gañe bi moo tax ñu jàpp ne Kouyaté ak Issa ak Ismaïla Sarr moom jàpp nañ ne daal ay potentiel titulaire la nekk ci onze type bi. loolu la ñuy wax nee nañu mën nañoo nekk potentiel titulaire ci onze de départ yi contre Burkina ki nga xamante ni tamit noonu soxna Amina. Euh, clé du match lañ joxe ku ci nekk euh, maanaam jour bu ci nekk nan nga war a comporté woo euh, ba daal di euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Burkina waaye tamit lan la ñu war a mën a euh, dindi ci li ñu jotoon a donte sax am nañu ndam ba heure bi waaye ñàkkul ni ba tey am na ay lapsus yoo xamante ni c'est à corriger journal bu sunu lamb lañ koy jeexalee rek moom mi xëy dalal Aline Gueye nekk manager Bombardier jàpp na ne moom dina métti lool lool jamono ji nii tey pour nit daan Bombardier si guddi yi mu toll noonu la demee euh, buñ ko tëjee journal suñu làmb euh, Bombardier la daal di fësal moom tamit nag euh, ki nga xamante ni moom moo di manager am di wootu turu Aliou nee na jamono ji dara gënul la difficile daan Bombardier rawatina nag daal di koy daanaat ce qui signifie que ni Bombardier jamono ji pare na bu baax a baax contre Eumeu Sène xamante ni tey day risqué tëdd lu tolloog ñaar fukki at fële sa diwaanu États-Unis ginnaaw bi ñu ko jiiñee rek viol ak li nga xamante ni moo di agression agression sexuelle. Jaguar lutteur la woon. dem états uni toog fa dafa mel ni suma ma juumul Jaguar nag moom jamono ji nii ca diwaanu États-Unis d'Amérique lañ koy tuumaa lu toll ni pédophilie ak agression sexuelle ñaar yi nga xamante ni nag loi boo dem ci àdduna def cee diis lool rawatina loi américain yi bu moytuwul rek nee nañu vingt ans de prison ferme lay daal di tëdd ci ko ñaanal yàlla rek mu daal di mucc ah, ci li nga xamante ni moom moo di loi boobee ñu daal di koy seetal na mu gën a gaawe dafa loolu a fës. waaw xibaar revue jox leen dig beneen yoon